Jëf Jël maa ngi lay nuyu. yee maa ngi lay siyaar. Ah, tey ñu fekk la ci Bamba Day édition 2023 ban taxawaay nga ci am ak ban euh, message nga am waaw xam nga bisub se ansibila bismillah inna waliyallah jërëjëfe Serigne Saliou jërëjëfe xam nga bisub se Ahmadou Bamba Day moom day symboliser Afrique tey day honorer Afrique tey day wane lan mooy senegal bis bi am naa si mbégte goo xamante si nii foo xëy na sama njott ma lay wax fi mu toll si man parce que day bis boo xamante si nii dafa siggilaat lislaam dafa wanewaat lislaam parce que mboolem këru diine yëpp dañ fi teew mboolem këru diine yëpp dañ fi teew li demee si Seydina Limaamu maam Alaaji Malick Baye Niass Boukounta ñëpp dañ fee teew te muy bis boo xamante si nii maanaam buñ ko gënee fonk Afrique dina solaat beneen mbubb boo xamante si nii incha allahu rabbi maanaam day taw feexa si ñëpp di yem si yoonu murit kase waaye man sant gi ma sant mooy dama daan nekk Sénégal di dégg ah, bisu Cheikh du Bamba ma daan rêvé naan est-ce que foofu dinaa fa mas a teew fekk yàlla neewoon na ma di fa teew ba bokk si organisation bi di si nas di si nocc mbégte boobu laa si am waaw xam nga kër Serigne Touba moom fépp foo mënti dem Serigne Touba dafa war a am daara parce que ah, Serigne Touba gëmut kuy doon doxandeem si fenn sëñ Touba gëmut kuy doon fenn maanaam ku ñëw di jaaxle moo tax kër gi moom ala kulli alin war nañoo fexe xeex ak suñu nafsu ba déwén ak jàmm suñ borom dege mu pare bañ mën a jox sàkk bi caabi ji incha rabbi Ah. waaw. waaw xam nga Baye moom moom mooy maanaam jaam bi bi mu màggee ba pare war a liggéey bu liggéey mënut jariñ boppam yoonu murit pour mu jariñu il faut que Baye Fall am si. mais Baye Fall day koo xamante ni séppoonu yoonu murid la moo tax foo munti dem ci maanaam ndaje murid Baye mooy togg gi nga xam ne dañ ko togg ba pare te amul xorom ndaje murid bu fa Baye Fall teewul rek daanaka ndaje ma maanaam solo gam mën a am man nañ kaa bañ a teewlu dëggantaan mooy suñu taxawaay fii si New York si organisation bi sécurité bi togg yi xeewal seggi café defari mburu jox jaam ñi ñu xeewal te rek tax. jërëjëf ngi triplé ci dëkk bi ah, ñi nga xam ne saa borom daa dogal ñun ñu doon ay gan awee si yoonu suuf yi dugg fi li ñuy def rek mooy moytu te xam lan mooy soloy dëkk bi ñu taxaw si parce que dëkk bi daa am loo xamante ni moom la làmboo dëkk bi nag lim làmboo bu saa borom dogalee nga nekk si jàmm rek ngay am maa ngi ñaanal ñoom ñëpp suñu borom yootul leen jàmm sutura ak tawfeex ñu ami këyit mën a dellu Sénégal gisanteeg seen i mbokk jëriñ seen i mbokk bat seewul xatim